asalaamaaleykum mbokku internet 24 actu ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax di janoo ak yéen saa su nekk comme ni ñu ko defee nag semaine bu nekk seen émission seen entretien xàmmee ngeen ko bu baax a baax ci seen site bi di 24 actu saa su nekk nag dañ ciy ay kàngam yoo xamante ni kon kenn dootu leen laajteeti ci mim réew tey nag ma feggoog waxtaan bi koo xamante ni yaakaar naa ne département bu Touba bi ñëpp xàmmee nañ ko fi baax a baax muy Soxna Fall bokk ci Sénégal 2024 di présidente femme développement fii ci Touba duñ def rek lu dul bàyyi ko rek mu di nuyoo ko mbokk internet yi koy waxtaan euh, soxna Fall dalal ak jàmm nuyu naa la. waaw maa ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu waa Sénégal di la nuyu sama doom yow mi ma fas yéenee pellool ñu waxtaan ci jamono ji ak jafe-jafe yi. di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp di siyaare sunu xalifa sëñ taxa yàlla yàggal ko fi sëñ Cheikh Jëmb Fall sunu borom yàggal ko fi ñuy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp gaynde kër Baay gi fas yéenee ñëw. jàkkaarlook Sénégal jàkkaarlook Afrique jàkkaarlook fépp fu mu nit nekk tey déglu te yor noppi garmi pour ñu waxtaan. d'accord am na solo nuyoo bi am na solo euh, Soxna Fall bëggoon nañoo xam euh, kan mooy réellement Soxna Fall ak Soxna Fall fan la jaar. waaw Soxna Fall nag euh, doomi géejawaay la géejawaay laa juddoo géejawaay li lycée Limamou Laye ñu koy wax Baxdaat fa laa juddoo. Euh, soxna Fall nag wax dëgg yàlla nekkoon kër sëñ ba kër gi ñuy wax kër di fon sa bàjjan moo ma yar ndax àjjuma ji ma fere lañ ma jox sam bàjjan ma nekk ak moom kër di foncé muy kër sëñ ba fi ñuy jaayee garab man foofu laa yaroo. Mhm. Euh, soxna Fall lan moo tax nga jógee Dakar daal di ñëw tuubaa waaye yàlla nag dafa dogal ma nekkoon fa ak samay waajur sama waajur wu jigéen génn àddina ma war a toll nag ci jàppale samay rak jàppale samay doom nag ma daal di dem nag tukki nag tukki bi nag sori na sori wut ndax euh, dem naa Maroc dem naa Sabadola wax dëgg bari na réew yu ma jaar daal daf ci dul xaj oh, lépp nag pour njaboot rek pour njaboot rek. moo tax nga daal di jóge euh, Dakar dal di ñëw Touba ngir def euh, li ngay def muy politique. waaw bi ma tukkee nag. dafa am sama benn nijaay boo xam ne moo ma jëndal kër kër Baay Laat euh, man ko man Touba dafa ma neex te dama fa bëgg a dëkk ndakaar laay juddoo nag waaye tuubaa moom dama ko bëgg te dafa ma neex sam papa nag am na fi kër bi ma jëndalee kër mu ne ma foo ko bëggee ma ne ko man da bu ma ko amoon kër Baay Laat dina ma neex yàlla dogal ma am ko kër Baay Laat wax dëgg loolu moo ma indi tuubaa pour ma toxu si fii Touba. ko wax ko sànq nee nga gaynde kër Baay Laat lu waral tur boobu. waaw sam bàjjan moo ma yar xam nga kër sëñ ba kër di foncé mboolem ko fi nekkal sëriñ Touba rek dafa am màggal guñ fay def goo xam ne chaque année ñoom dañ fay ñëw dañuy ñëw kër sëñ ba boobu nag xale laa sëñ Abdoulaat gis ma ma nekk ci waañ wi xale yépp a nga ca ñu ngi ci màggal gi waaye man maa ngi ci togg gi rek boole togg gi ñuy ganale nit ñi boole ko togg gi may toggal sam bàjjan mu ne sam bàjjen xale bii moom kanam mu ne ko sama turandoo la maa ko yar mu ne ko wool ma ko mu ñëw ma dikk mu daal di may ñaanal daat na ma suuf si sax boo ko tibbee di ko jaay dina jar noon noonu laa mel suuf si bu ma ko tibboon di ko jaay nit ñi dinañ ma fa fekk ndaxte moom moo la ko wax moom ko ñaanal mhm, macha allah am na solo sànq wax naa ko yaa ngi bokk ci mouvement Sénégal 2024 mouvement bi naka lay doxee waaw mouvement Sénégal 2024 nag Ibrahima Kadi sama président ma koy ñaanal suñu borom may kon ndam ci Touba ndax ku war a am ndam Touba la ndax ku liggéeyal sëriñ Touba la ci dëkkam bi surtout maa côté bi mu féete muy côté sëñ Moustapha Bassirou man li ma koy ñaanal muy Ibrahima lu mu bëgg rek na na amiin ndax euh, nit ñi xamuñu nit xamuñu nit de kuy toppe lañu xam Ibrahima dafa oyof oyofaayam nag ku ko topp ci moom da ngay defe ne da nga war di jaar ci kawam di jàll te du noonu àddina du noonu yàlla dogal nag ñu nekk ci ay élection am ku ma boole ak moom mu ñëw taalal may làmp ca sama koñ kër baylaat loolu moo ma booleeg Ibrahima après élec ci élection yi. moo tax nga daal di intégré mu biir mouvement bi. déedéet ndax bi may xamanteeg moom boobu mouvement bi taxawut boobu politique et développement moo am. mu dugal ma ci panelam man ak ñeneen jigéen yu nekk fii ci Touba waaye man ba tey maa ngi toog ànd ak Ibrahima waaw. d'accord léegi euh, mouvement bi kañ ngeen ko tàmbali. mouvement bi bi ñu génn après élection lañ taxaw woote sunu assemblée générale taxawal mouvement bi Sénégal 2024. Sénégal 2024 lan lay defal société bi. Sénégal 2024 li muy def bari na ndax maa ngi jiite femme développement jiite dox jàmm. tuubaa pour ñu dox ci jàmm rek pour xam nga daf ni nit danga koy fal am at topp ci moom rek di politique fu ñuy woote nga di fa dem jigéen ñi di Touba dañu war a dépasser loolu dañu yor ay doom te sëriñ tuubaa ñi fi nekk ki ko fi nekkal muy sëñ Muntaxa mënul kër gu ne mu dugg fa kenn ku nekk mu fajal la sa soxla ñaan la mën ak sàkku ci jaam yi ñu dimbali leen dafa jot ñun jigéen ñi fi nekk ñu dimbali sëñ Muntaxa dimbali borom dëkk bii tax ñu bàyyi suñu dëkk maam yi ñëw fii te bàyyi politiciens yi ba heure politique jot nag képp ku ku nekk loo mën après nga def. ay ndax ñu gis nañ jigéen ñi Touba fii bu politique jotee gars yi dañ leen di jël si lu ne lañ leen di defloo di leen dig lu nekk mais la fait que rek seen candidat daal di falu duñu fàtte leen. waaw loolu man nag teguma ko ku fulla ndax saa boo ma bëggee utiliser utiliser ma heure boo paree pare nga ci comme li ma wax ci feebar bi bu tombé woon ak jamonoy élection dinañ xam kër gu nekk ceeb dana fa war a dugg wala du fa dugg ndax biñ tolloo ci parrainage kër gu ne dugg nañ fa biñ fa duggee jël nañ carte d'identité yi ñooña kon xam nañ ñaata nit ñoo nekk Touba bu ñu leen bëggee dimbali lii ñuy wax rek guddal jël la kër gu kuñ bëgg a dimbali dimbali la. Mm-hmm. kon da nga ne daal lépp rek politique moo ko lalut. politique moo ko lal gis nga lii. am na waaye dañ ci dugal politique moo tax mu yàqu suñ toppoon rythme am na rek du métti ndax jigéen joo gis bu xëyee këram dana sangu ba set dana raxasu salte jeex na fii ci mim réew surtout maa Tuubaa gi ñu nekk fay ñum ndox kon ku salte yow la neex. d'accord léegi mouvement la ñuy jàppalee jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi nekkee biir Touba. ñun nag jigéen ñi topp ci ñun la ñu wax de ñi nga xam ne yaakaar nañ nu topp nañ ci ñu ànd nañoo ñun liggéey. képp ku ci feebar dinañ dem seeti la képp ku ci wàññeeku yàlla tere ak koo mën a doon ak foo ko amee dinañ jéem a def lu tuuba dem ci yow képp ku ci xew xewle dinañ mobiliser wu dem ndawtal la jox la lañ lay jox dikk dem toog mouvement bi nag dafa am lu ko lu ñu boole muy weer wu dee dañuy daje ñaar yoon natt 1000 cent francs 100 francs bi di social 1000 francs bi ñu dajale ko bu ñu paree ko am 20000 ñu jox la ko am 25000 ñu jox la nga dem liggéeyi. ah d'accord comme genre prêt lay doon daal. Mm. d'accord léegi yan jafe-jafe ngeen ci ngeen ci am euh, ci biir mouvement bi. jafe-jafe yi bëriwul ndax suñu bopp lañuy ñuy liggéeyal kuy liggéeyal sa bopp nag doo ci xool jafe-jafe léegi leen nga jigéen moom bu ñuy ànd il faut ñu am ay tuuti kii ne nii kii ne nii waaye du yàgg dañuy xool fi dëgg gi féete rek ñu dem fa. waaye amul ngaañ wax dëgg yàlla. Mhm. war nañoo gis ne kon mouvement bi war naa ànd ak euh, SEDAF ndaxte SEDAF ñoom nekkeewuñ fi lenn lu dul pour euh, jàppale jigéen ñi ndax bu ngeen soxlaa matériel dina ja dina yomb pour ngeen dem SEDAF mën koo am ci biir mouvement bi. man mii di wax ak Soxna Fall juróom-ñaari at maa ngi tuubaa xaw ma fu SEDAF féete. ah bon. waaw juróom-ñaari at maa ngi tuubaa xaw ma fu SEDAF féete. lu tax loolu soxna. ndax ki yore SEDAF tey bu doon man place bi mu toog maa fa toog danaa xam jigéen juy fa nekk ci développement ma dem seeti la du ma ne damay du damay toog ku soxla ñëw da nga fi toog nguur moo la fi teg pour ñëpp ci développement moom fee mu toog politique waru ko woon moom moom borom SEDAF laa wax de politique waru ko li tax politique waru ko muy dafa war a boot jigéen ñëpp képp ku mu xam na dajale nga ñaari nit sax. mu fexe ba nga ñëw SEDAF loolu moo doon bësam moom bu boobaa nit ñi dinañ am fuñ ko teg. mais SEDAF dafa politique n'est-ce pas. moom da koy politiquer man li ma gis man laa wax man soxna Fall. da ngeen faa soxla matériel euh, joxuñu leen musuma fa dem laa la wax. man musuma fa dem. ndax nit ki la yëg nag moo jar nga jóg dem seeti ko. xam na soxna Fall ndax woo na man na ma xam naa li ngay def. loo defut yow la neex. kon xam na soxna Fall ndax bi ngi dégg soxna faal lan moo tax soxna Fall demul ci moom xëy na dafa bëggul soxna Fall jege ko man nag neexuma ak tan dama bare dama dama bare ay lu may bañ de muy man duma gàddul kenn saak te du ma yendu kër kenn duma fanaan kër kenn te du ma woo kenn nit nag naan ko kay dimbali. soxna gis yow benn fit lan moo waral fit boobu fit bi bi mooy damaa nekk Touba juróom-ñaari at di ànd di politique ci ànd ak Ibrahima di politique. yàlla dogal képp kuy politicien ku ne soxna Fall dugg na sama buntu kër jox naa ko junni wala ñaari junni ñëwal génn fii ñëwal fii ma toog nga toog fi wax ko amul ku amul kenn ku ko mës a def ma ko def kenn mosuma amosula am bi élection yi jotee boole nañ maa ki nit ku ma ci dem damay toog ci sa kër xool la ni ngay doxee ma dem toog booba jóguma pour dem ci ñoom jóguma pour ànd ak ñoom dama leen doon xool ñoom waa APR yi lan la ñuy liggéey ak lan la ñu liggéeyal Macky Sall ci biim réew ci biir Touba gi ci laa woowe nit ba muy ma mën a ko Macky Sall du gañe Touba ku ma jege ku jege Macky Sall mu ne ma soxna Fall li tax nga wax loolu ma ne ko dañuy lekk alalam nee ko na arrêté loxoom ci biir Touba dañuy lekk alalam du gañe ndax alal ji Macky Sall dugg dadu dadu dadu tasaaroo ci ñëpp. c'est que joxuñu ko kenn man dama doon campagne sama campagne yu bopp man ci xool ndax danaa dajeeg waa APR yi. lenn dalaa xam ne moom sañ naa koo wax moom mu leer ma moom ne kooku moom buñ ko xeexutoon Macky Sall man naa am dara biir Touba ak bu àndoon ak ay nit wala mu ànd ak ñoo xam ne du ñu ay workat wala mu ànd ak ñoo xam ne du ñu lekkkatu xaalis du weñ du ñu doon weñ fu tooy ñu dal assuré naa sañ naa taxaw moom wax ne moom liggéeyal na Macky Sall Touba waaye daa àndu daa amul entourage bu baax muy maam Xari Mbàkke. d'accord entourage am moo baaxul. maam Xari Mbàkke liggéeyal na Macky Sall tuubaa man du ma tricher. billaahi duma wax lu ma gëmul xaw ma maam xari maam xari mbàkke xaw ma ko de toog naa ak moom nii mu toog nii ma toog nii mu toog ak ay nitam waaye xaw ma maam xari maam xari xaw ma liggéeyal na Macky Sall waaye entourage am kenn baaxu ci ndax lu mu leen jox duñ ko yeggale ci askan wi. kon mën nañoo jàpp ne loolay jafe-jafe Macky Sall bu mënul gañee du maam xari rek la fi nekkaloon du maam xari rek la doon jox. dafa jox maam xadi jox ñeneen jox ñeneen jox ñeneen lan moo tax gañe wuñ Touba Macky Sall loolu mu leen jox su ko tegoon ci loxob Ibrahima ma ànd ak moom waxuma la Touba waaye diggante lu da lu lu wër Touba dañ koy gañe tax dañ koy yóbbu ci askan wi. Mm-hmm. ñàkk séddale gi moo koy rey. xam nga bu ñu la joxee sa moyen na la liggéeyal nga jël sa moyen def ci sa compte del raasaatu ci ministre yi lu ñu lay jox ay bool ay basang yu ñu lay jox nga yóbbul ko nit ñi loolu moo rey Macky Sall waaw soxna Fall ñu dañoo nemmeeku lan moo tax uh, yéen jigéen ñi nga xam ne nekk ci département bi lu tax jubóowu leen. ah ñoom ñoom waa APR ak ñoom opposition bi jubóowuñu ñoom la ñoom waa APR ñoo jubóowut ndax ñoom ñooy xeex seen biir xam nga nag ginnaaw waa APR ñoom ñoo jubóowut civil bu mel ni soxna Fall ndax nee nañ ma man du ma opposant civil laa kon nag mënu ma ànd ak ñoom. loolu lañ lay wax. waaw ah, loolu lañ ma wax. mais dañuy gis euh, des fois lu ñu leen boole sax pour ngeen séddoo ko jafe-jafe lay doon ndax nemmeekoo nañ jamono ji xaalis bi ñu leen joxoon somme mu 10 millions ba tey mënu leen fexe ba séddoo. maa ngi toog biñ koy séddale biñ koy indi maa ngi toog Ibrahima mii moom a kox looloo waral ma a la nawloo wuñu nit nit ñi nekk Touba ñoom buñ leen soxlaa nañ leen utiliser buñ paree ñu bàyyi leen. ndax bu ñu fi dee joxe xaalis bu toll noonu kii ñu koy wax muy Ndeye Sali ñu naan moom mooy ministre bi moo fi nekkal jigéen ñi Ndeye Sali joxewut xaalis bi dañu war di wax dëgg Ndeye Sali joxewut xaalis bi Ndeye Sali dafa remplacer ki joxe woon xaalis bi. xaalis bi kan moo ko joxe. man fekkewuma ko xam nga nag lu ma fekkewul mënuma ko wax waaye li ma fekke man te xam ko Ndeye Sali joxewut xaalis bi ki joxe woon xaalis bi. ministère bi sa li nekkoon moom foofu la nekk dama du bëgg di leen tudd ndax sama yoon nekkul ci ñoom bi ñu indee xaalis bi teg ko xaalis bi maa ngi toog ñëpp a ngi toog waa APR yi ci boppam ñi far fee na ñiil kii lañ koy jox ñi far kii kii lañ koy jox ñu di ci jàppante ci seen biir ci laa jógee ne benn jigéenu APR laat kaa ngi taxaw ñëpp a ngi taxaw ma ne benn jigéenu APR duñ ko jox xaalis bi ndax buñ leen ko joxee kenn du ci jot ñoo koy lekk ci seen biir ndax lu ñu lekk mu rees mën nañ ko man maa wax lii man soxna Fall opposant yaa nga fa nag waaye kenn ku jóg wax amul mennum soxna faal moo jóg na benn jigéenu APR duñ ko jox ba laat ko jóg jàkkaarloog man na ma loo wax ma ne ko li ma la wax dégg nga ko dama na la benn jigéenu APR du ngeen ko jox xaalis bi bi ñu génnee bi ci bitit Mariama Ndiaye mi ngi taal otom di dem mën a ko xaalis bi yéen ñooñu ku ko ci fanaanoo sa kër falaa lay fekk ndax moomu leen ko Mhm, kon ba léegi xaalis ba tey yéen a ko tënk fi ngeen ko teg. man ba tey nag wax dëgg mënu ma la wax jox nañ leen ko mënu ma la wax joxuñu ko ndax fekkewu ma la ma gis daal man ba ma koy gis-gis xam naa ne joxewuñu woon xaalis bi xaw ma nag ñu dem ba ci ginnaaw ñu joxe xaalis bi ndax loolu leeruma ba tey jii aw ma ci lu ma leer. léegi yéen ban solution ngeen yaakaar ne bu ngeen ko tegee yéen jigéen ñi nga xam te yéen nekk si département bi di ngeen juboo duñ mës a juboo ndax ñii fi nekk Macky sàll teg leen fi ñu fas yéenee ànd liggéey ku jubut nag ku jub du ànd ak ku jubut dañuy waxante dëgg Macky Sall bu bëggee am jàmm ci réew mii na fi teggi ñii fi teg teg fii ñi nga xam ne kalaasu Ibrahima Ka gi nga xam ne goree ko tax a tuuti loo ko jox mu jox ko nit ñi ñun man de département bi laa la wax ak koo mën a doon ci àddina soxna Fall du topp ci sa ginnaaw te Ibrahima dootu topp ci sa ginnaaw ndax li rey Ibrahima man du ma rey gore ànd ak ay nit ci lay wadd ñuy lekk fal seeni doom fal seeni xarit bàyyi ab bàyyi Ibrahima man loolu duma dal de te loolu may taxaw dootul dal Ibrahima Ka yi toog ndax ku fi falu mu ànd ak yow nga falu boo pare bàyyi Ibrahima Ka du ñu ay gor ay jaam lañu man loolu duma ko def man soxna Fall kon loolu moo tax ma taxaw fa yéene ànd ak Ibrahima Ka képp ku bëgg soxna faa rek na nga bëgg Ibrahima Ka pour Ibrahima Ka nag am dara ndax commune bi muy wote moom commune boobu chaque jour Macky Sall dafay gañe lan moo tax Macky Sall mënul xool Ibrahima Ka. jafe-jafe bi lan la. iñaan soxor yéenewuñ ko te nag ni ñu mënee defara noonu lañ mën a yàq de ku fi defe ne fii Macky Macky Sall fii ku fi defe ne dina bàyyi Ibrahima ki ginnaaw bàyyi Soxna Fall ginnaaw taxaw fii ne dañuy dëggal seen bopp amut du am fii de du fi am de ak koo mën a doon nag ñu ñu mën a defara nag noonu lañ mën a yàq ndax danoo politique nag rek Covid 19 bi ñu dugg mu di mbas mi euh, seen mouvement bi yan soutien lañ def euh, ci jëme ko ci askan bi waa joxe nañ ay ndimbal joxe nañ joxe nañ ndimbal joxe nañ suukar tàndarma kafe meew am ñoo xam ne nag ci suñu ci ñun lañ bokk jëndal nañ leen ceeb jox leen suukar nga xam ne dañoo bokk ci ñun te xaw a néew doole jëndal nañ leen ceeb Ibrahima jëndal na leen ceeb dem jox leen ñu toog ca seen kër. Hmm. d'accord léegi euh, loolu nga mën a wax ci manifestation yi nga xamante ne amoon na fi jamono ji ñu génn ndax euh, Covid 19 bi. félicité xale yi ndax ay sëfoor lañu. te ci seen oto lañ yaakaar état toog ñu woteel ko ay milliards mu war a yëkkati milliards yooyu def ko ci xale yooyu xale yooyu di sëfoor ñii de ay apprenti ci loolu ñuy liggéey moom lañ yaakaar te lu ñu wax duñ ko eggale ki nga xam ne mun naa ma ne ko moo fi nekkal Serigne Touba te lu mu yëg faj ko kuy li jaami yàlla yi ci saayir ci baatin suñ ko waxee ne ko lii dafa am ci réew mii te mu am lii ci xale yi day jóg faj ko li ma gën a métti ci sama àddina heure bi ñu yëkkati sëñ Muntaxa te musuñu ko yëkkati xalifa général fii xalifa bu ne jaar na fi di sëriñ Touba coono bi ñu teg sëñ Muntaxa kenn mosu ko koo teg kon lan moo tax ñu teg ko ko lan man dama bëgg a xam lan moo tax ñu bëgg a faye sëñ Muntaxa lii sëñ Muntaxa mérituwut lii ñépp a ko doon ñaanal yàlla na nga nekk xalifa général kon bi mu ko nekk dañ ko war a bàyyi mu nekk ci jàmm. Mm-hmm. Touba mën na ñëw politique mais est-ce que façon bi ñu koy defee gën na. Touba ñi mën a politique da nga leen di tànn ay lekkkatu xaalis ñoo fi nekk nga fekk ba ko voilà kaana ko baadoole ko amul. xam nga moo tax ma wax ma wax la loolu juste pour rejoindre la ci li nga xamante ni def nañ ko jëmee ko ci xalif bi mooy jour manifestation yi ndax nee na moom yëgul lu xew. yëgul boo déggee ni mu waxee mooy ça veut dire que yëgul. mais xale yi ñoom nee nañ dem nañ pour informer ko mais jotuñoo jot ci sëñ bi. nga yaakaar ne foofu manque de communication amul foofu. man daal li ma la bëgg a xamal sëñ Muntaxa lu mu yëg faj ko ku daan faj te nekkoo xalifa général soo nekkee xalifa sëriñ Touba nekkal fi ñëpp loo yëg di ko faj waaye lu mu yëgul mënu koo faj mbàkke te bam ñaanee la yëf yi jeex c'est que dañ fay nekk du guddal jël rek sëñ Muntaxa du moroomum kenn nani koy wax li nekk ci réew mii nañ koy wax li nekk ci dëkk bii mu def ñaan su ñaanee day am. est-ce que Touba kon waruñoo bàyyi politique. man da bu doon tey man ci njabootu sëñ Touba laa bokk man te bokk ci dëgg-dëgg man dinaa ko woote képp ku bokk ci njabootu sëñ tuubaa nga tekk sa ndànk sa sa sa jàjj ci politique ndax liñ leen di wax damaa naqari te mënuma ko faj. léegi ban solution ngay indi pour euh, jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci département bi. duñ mës a juboo ndax ñiñ fi teg dëgguwuñu te ay lekkkatu xaalis ñoo fi nekk fi ne 10 millions yi jaral na leen dem ba Casamance dem ba foo xalaat ba saba dollar pour tëj gën ñi nit ñi pour lekk xaalis bu lu leer laa lay wax waaye xaalis bi ku ko lekk di nga dem bàq ya de ku ko lekk te séddale ko fi nga ko war a séddale jox ko nit ñi ko moom barke borom Touba maa ko ñaan Serigne Touba di nga dem bàq ya ci na ci ren gi. d'accord ndax. Euh, ndax ñoom xaalis nag jaral na leen sakk lu ne ñu def ko de. waaw waaye xaalis 10 millions yi nga xam ne waa Touba moom jigéeni Touba ko moom ñoom ñu ne waa APR ñoom ñoo koy sédd ku ko lekk rek dem bàq ya de. <laughs> ndax politique euh, nekkul loo xamante ne nii luy wéy la ndax yéen fàggu ngeen seen bopp dara pour seen avenir. waaw ñun ñu ngi liggéey c'est que ñun ñu ngi liggéey dañoo yëmut ci liggéeyu nekk di politique dañuy yor sunu métier di liggéey di am sunu xaalis topp ñu ci politique topp ñu ci benn ministère fu ministère yendu nga fanaan ndax da ngay xool rek Marème Faye sa temps yi passé romb la fi la fi ñëw Mansour Faye kii indi ci ceeb bi fii dem côté Sadio ñoom ñëpp jigéen ñi Touba woowu leen ñoom ñëpp dañoo gàddu seen am ci ñoo xam ne ñoo gàddu seeni i saak di topp al toppe bi lañ war a ba ñàkk fayda gi ñu ñàkk fayda di topp ministre yi lañ war a ba nañ ko bàyyi te gëm seen bopp te dem liggéey ji caaf sax soo ko jaayee dafa war a jar wala ndox mu set bàyyi seen ñàkk fayda gi ñu nekk ci Touba dañoo matandi de. <laughs> ban réaction nga jàngatee coow li nga xamante ni jamono ji nemmeeku nañ ko ci Sénégal mu di coowum suuf ngi gis ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias génnoon na di ci wax jëme ko ci ki nga xamante ni ah moo di Moussa nekk directeur u euh, Dakar Dem Dikk ban euh, jàngat nga am ci loolu. kooku moom dootum mënuma wax ci moom muy Moussa Diop ki nga xam ne moo jiite Dem Dikk man ba mu nee autoroute à péage bi tuubaa bi dañ koo war a dindi boole ko katapara man booba laa ko dindi moom. teg ko def ko déedéet man booba dama koo dindi moom yóbbu ko ba àllub kaañ mu naa mën a ko ma tegal ko ko fa ndax ñun ku bëggul sëriñ Touba ñun waruñu la bëgg waruñu la déglu sax Moussa Diop man du ko déglu ba képp ku ko jege sax duma la xool ndax ñun lu ñu am Touba la lu ñu am dañ ko war a def Serigne Touba kon ma Macky Sall gañewut te ay nitam a tax gañewut mu ne ñun ilaa Touba bi dañ ko war a yóbbu ilaa Fuuta ilaa Fuuta mu naa mën ko na ko fa yóbbu lu ñu ngi toog Touba di xaar Serigne tuubaa lu woo xooruñu ko moom Moussa Moussa moomu lu dul loolu dana ko dal lu leer laa lay wax gis nga lii moo feeñ waaye am na leneen luy génn lu dul loolu dana ko dal. est-ce que loolu du rejoindre li nga wax sànq pour que ñu bàyyi langue politique gi nga xam am na Touba. dama ne la xam nga sànq dama la ko wax dama ne man tey bu ma bokkoon ci njabootu Serigne Touba sant seen sant wii luy politique ñoom dañ koy bàyyi ndax neexut seeni taalibe neexut ñi leen bëgg. te neexul sëriñ Touba mi nga xam ne moo moom dëkkam bii dama ne Abdou Diouf daana politik di fi ñëw di ànd ak sëñ Abdou ndax coow li fi am am na fi sëñ Fàllu ànd ak Senghor ndax coow lii am na fi lay Wàdd tombe fi ak sëñ Saaliw sëñ Saaliw ba mu sonnee lu mu wax di ginnaaw digal naa leen ngeen bañ tere naa leen ngeen ba damay daal di ji ngeen di jiitu rek ma topp ci seen ginnaaw loo ci gis at mooma loo ca gis gis nga njabootug sëñ Touba gi ku leen ba wut doo gis biti doo gis biti lu leer laa lay wax kuy politique na nga jël njabootug sañ Touba gi nga teg leen fa nga leen war a teg li ñuy tuuti tuuti ak lu ñuy doon doon kilifa na nga leen teg fa nga leen war a teg boo bëggee am jàmm man duma wax ci ñoom leen wax dëgg yàlla lu dul lu baax. ko ñu ngi jëm euh, ci nawet te yéen euh, gis ñu seen mouvement bi yéen a ngi dox ci euh, social lan ngeen prévoir pour nawet bi jàppale ko askan bi wala ndongo daara yi wala daara yi. xam nga li tax ñun mënuñu leen mënuñu ci xuus dëgg dëgg dëgg nun tey bu doon tey état daf nu taxaw jàpp leen nun bu ñu jógee taxaw di ngeen xam lan lañuy def ci ndongo daara ci nawet bii lan la ñuy def ci tool yi ci nawet bi waaye ñun yoruñu moyen sunu moyen bopp la ñu yor sunu moyen bopp nag moom la ñuy dimbalee jaami yàlla yi tey ñu amoon li ñu bëgg ñun ñii kuréel bi ñu yore ñun dañuy bàyyi ren ñun bu ñu amoon li ñu bëgg ñun dañuy bàyyi lan moo waral ñuy su ñu ñuy suul lan moo waral ñu ñuy nëbbu lan moo waral ñuy nëbbu Ibrahima Ka ndax man du ma wax soxna Fall Ibrahima Ka mi nga xam ne ba muy politique ca lay wadd ba fii ñu toog ñu koy xañ xañ googu laa bëgg a wax lan la leen ab Ibrahima Ka def bañ di ko xañ biir Touba loolu laa bëgg a xam. est-ce que nekkul ah, ndax ñun bëgguñu ko dëggu ak it Ibrahima dafa oyof ndax kim doon àndal ci lay wadd bi bi su ñëwee bu doon gor la wala moo xam ne nit la koo xam ne kuy dimbali doomu aadama la day xañ ay doomam te jox Ibrahima mi doon ànd ak moom loolu moo métti Sénégal soo àndeek nit bu faloo wala mu bëgg dara la fanaan tegg jël doomam teg ci watam wala mu jël jabaram teg ci watam na ñuy xoolaat yomal xiyaam am na de àllaaxira am na de te àq dafa sew. dëgg la ah, soxna Fall waxtaan bi eh, neex na trop doyul sax waaye xam naa ne temps bi moo ñu xoj xanaa ñu bàyyi rek nga daal di tàggoo. waaw may nuyu senegal di tàggu ñëpp rek di gërëm Ibrahima Ka di ko sant di wax Macky Sall bu fekkee ne yaa ngi may dégg yaa ak saw nit Touba amoo fiw nit ay lekk xatu xaalis nga fi am ñoo xam ne ministre yi la ñuy topp nga geestu Ibrahima Ka ndax dañ na Dakar du saf ñaari yoon déedéet day saf safaat ak noo ko bëggee xam nga am na ñu bëgg daqaar bu weex am na ñoo xam ne dañoo bëgg bu leseer boo ci defar war naa mën a neex nañ am Ibrahima ak Soxna Fall ba xam. ah yéen daal loolu yaakaar ngeen ne bu leen ko joxee Macky dina gagné Touba. dama ne Touba amuñu problème mu Macky Sall gagné fii ndax Macky Sall ñii fi nekk naan dañuy opposé kenn opposé wu fi ñoom ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal ndax ci élection yi bi ñu demee ba ci kanam dañu defe na Macky Sall day ñàkk Touba ñoom opposition bi dañoo dem jàppale ji Macky Sall dañ tax Macky Sall am fi li mu fi am. Mm-hmm. kon ñàkk dëggu gi dafa ñëw foofu. dafa dëgg dama ne gëm. li ma la wax bul deñ Touba kenn lañ bëgg fii ci politique muy Laay Wàdd Touba Laay Wàdd lañ bëgg ci politique kuñ ne la moom lañ bëgg ci politique ku dul Laay Wàdd waxuñu la luñ xam waaye Laay Wàdd lim doon woote sunu baay boobu bi mu dikkee dañ koo seexal tàngal mu dem fa bi <laughs> am solo nee naa la man sama émission ay kàngam rek laa koy seqal gis ngeen soxna Fall li nga xamante ni indi na ko mu di am am solo yoo xam leeral na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo di femme yi nekk si département bi mm-hmm. nii rek lay demee seen entretien saa su nekk ñu indil leen ay kàngam comme ni ma ko waxee dig daje lañ leen di jox ba beneen invité ci beneen seen entretien